الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بدعوة هجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه فضلا هذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا متمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا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 mbokk yu leen déglu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla dolli sant yàlla bu baax waaye di santaat yàlla mi ñu may kàttan may ñu fekkee biñ dellu si waaye dafa taani fajar di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasir amla ala kulli halin moo ñu ngi sant yàlla sant bu amut ak amut day waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak sahaba mi ak képp ko am yaa ngi topp sunnaam bi ba ilaa yawmal qiyaama yàlla ñu yàlla boole si ñoom wa yàlla ñu xëy jaam indoo ko fanaanoo ko yàlla mi jaamal yàlla defal jaamu yokk si loolu yokk ñu kattan yokk ñu wér ñu ci kër gi nekk ci lopitaan bu waaye fu may nekk di jaamal yàlla mi saafara yàlla yàlla may afiya yàlla yàlla may afiya yàlla may afiya jiitu àllaxira yàlla leen yàlla yaatal seen baameel yàlla def mu baameel mu nekk rawdatu min riyaadil janna ma ndaw yàlla sàmm leen aar leen daanaka yaa ngi warsagal leen xam-xam warsagal leen liggéey warsagal leen àndaloor yu baax jigéen yàlla sàmm leen aar leen yàlla boole yebal allah ramu ci safara mbokk julli ñaa fi daara Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi jàngalekat mu boobu mbokk julli yi ñu indi leen waxtaan bi nga xam ne day moom lañ commencé woon di jamono mooy li nga xam ne mooy xiyaana xiyaana suñ ko waxee eh, mooy lan or mu bari suñ jamono ji bari boo xam ne yàlla subhanahu wa taala def ñu ko tere mu ne buñ ko or te buñ or ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu mu nekk xuluk mu jikko boo xam ne jikko bu bona bona bona bon yàlla bugg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bugg ko te tey fi mu nekk nii suñ jamono bi nga gis ànd boo xam ne da nga gis ñii dañu am xol bu set pour ànd waaye ñeneen ña moom la nekk seen biir mooy or waaw buñ demee bi am luñ bugg rek di dal di or or seen boppa or askan bi or am na ñu xam ne si seen diine jaamu yàlla bi nga xam ne moo gën a am solo ñu ngi or yàlla subhanahu wa taala ndik yàlla subhanahu wa taala daf ñu jox koole dañ jaayante moom koole rek pour ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak kenn waaye nga xool doomi aadama yi léegi seen waxin ak seen jëfin li ci ëpp yëpp ay waxi bokkaale la te loolu mooy or ndiki yàlla subhana taala dafa si aaya bi ne yaa ayuha alladina amanu laa taxoonu allaha wa rasula wa taxoonu amanatikum wa antum taalamuun yàlla di wax ak ñi nga xam ne dañ gom yàlla nag ñi nga xam ne iman gom yàlla mu ngi seen xol mooy jaamu yàlla bañ ko bokkaale kenn yàlla ne ma tere naa leen de ngeen ormale ak or yonent bi salaa sallam xoolal léegi nit ñi faaletuñ sunna toppaatuñ sunna waaw moo gën a foor moo gën a bari moo gën a fes ñëpp toppa ko te ku su sunna yonent bi salaa sallam toppa bidaa rek or nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla daf ñu ne ati allah wa ati rasul topale man yo allah toppa yonente bi sa sallam yo si hadis ne si aya bi ne oma atakum rasulu fa xuzuhu oma nahakum anhu fantahu lu ñu sallallahu bi wasallam indi dañ ko wara a jàppa téye ko si waaye nag lu tere tamit dañ ko war yàlla ne amanu e yéen gum yàlla la takhunu bu or allah yàlla wa rasuluhu ak yonenteem bi rasul ak yonenteem bi sallallahu alayhi wasallam wa takhunu amanatikum parce que ñu ngi or ñu ngi or li nga xam ne moom lañ jaayante suñ borom te xam nañ ko mooy ne ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak kenn bañ a def shirk bàyyi di wax ne diw mooy suma yaakaar àdduna àllaaxira ana yàlla ana yàlla kooku ngay yaakaar àdduna àllaaxira wallahi jamono ji sax léegi ñu bari fees na léegi léegi-léeg nga ne diwa diw laa yaakaar fi fii si àdduna lu la la munal fii yaa ngi si ay jafe-jafe yu métti métti dara la munalul dara mënuloo ko fii ku la mënalul fii dara nag naka la mënalee àlaxira wala ki nga ne moom nga yaakaar àdduna ana ko ku nekkaatul àdduna nga ne moom nga yaakaar àdduna àlaxira àdduna yaa ngi nii di torox yaa ngi si ay jafe-jafe yaa ngi si ay tolof moom jiitu na la àlaxira la la faa mun a defal loolu mooy li nga xam ne mooy yàlla subhaana mu ne wa antum taalamuun te li ngeen def xam ngeen ko de waaw xam ngeen ko ndik yàlla daf ñu sant pour jaamu ko ابن عباس رضي الله عنهما من الأمانات الأعمال التي اؤتمن لها عليها للعباد وسن أمانات رك موي كولر بيغا خامني ولا كونتراك بيغا خامني موم لاي ساين اك سن بوروم سبحانه وتعالى واو nga xamné contrat bi moy lan ñu jaamu ko bañ ko bokalé keneen contrat bu nak ko ko buga yaaxa dafa melni yaangi dem ci li xamné shirk muy eh, ay farata yi waaw mu ne buñ ko wàññi nañ tëbb si farata yàlla subhanahu wa taala comme ni nga ko santaane waaw waaye nag ak kan yent bi alayhi salatu wasalaam mooy sunna bi mu ñu indi waaw ñuy dundal sunna bi waaye léegi sunna dañ ko jàpp rëy ko rëy ko rëy ko rëy ko bi nga xam ne ngay foog ne sax sunna amut ndik lan toppa mbiri baak eh, eh, li nga xam ne mooy ay bidaa yi waaw ay bidaa yi تسوى هي رجلنا اه ليلا في فيها كم عميل لف فمع ذلك أما حيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن على ما فرده ما افترضه الله عليه واو وهنا كنا كنا يا الله سبحانه وتعالى لم فرد سيو اه كل ربوها منك بوكو دفوت نيلا كل يوم القيامة بون or li ayat bi mu ñëw suñu digante ak suñu borom ak yëneñu bi alayhi nga xam ne dafay continuer li nga xam ne moo gën a bari tamit suñ diggante ñu ne neen yooyu yëpp amul benn bi si xam ne islam rafet na ko waaw parce que ñëpp xam ne amaanatun annaha amaanatun min gayri tashabuhin maanaam kóllëre boo xam ne kenn amul si sikki sàkka ne lii la ñu yàlla sant parce que yàlla bu mu waxee ne dafay oma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni waaw li tax ma indi doomi aadama ak suuf ak eh, doomi aadama ak jinne si si kaw suuf li tax ma binda leen mooy pour ñu jaamu ma alastu bi rabbikum qaalu bala bam ne ndax seen borom la doomi aadama bi ñu nag axa kañ bon nag kooku moo ñu moom li suñ ko defut rek ñu ngi or ba tax subhanahu wa taala mu inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin yàlla mu ne nag jubal ki nga dafay or incha allah si dars bu ñëw nañ ko jekkali ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala jubal suñ eh, jubal ñu yàlla subhanahu wa taala mucc si jàngoro or waaye yàlla subhanahu wa taala eh, defal ñu jàmm defal ko mboolem julit sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi